waaw ah, mbokk sama gaa TV ñu ngi leen di nuyuwaat fa tey ñu ngi ci foire fépp fii ci stade Amadou Barry euh, grand fi may ban box waaw fi may box 37 38 fële fële sëñ Lamine Diop ni mbaaw borom Birame Jéeme borom Jéeme kan mooy sëñ Lamine Diop sëñ Lamine Diop euh, moo nekk sëñ Lamine Diop mooy sëñ Lamine Diop bu Fati Mbaaw ah, borom Birame Jéeme moo njëkk sëñ Fati kon kooku war nañ ko xam ah. waaw war nañ ko xam mu nekk sàmpe bu mag a mag a mag a mag bokk expert mag a mag a mag. damaa dégg nga ni doomu Birame Ndiémé eh, borom Birame Ndiémé. waaw eh, eh, nan la def ba nekk moom moom waaw mu nekk tey su ma mu nekk lu loo xam ne carrément nag soo tontu ndax suñu lemiñ tey Birame Ndiémé dañ moom mu ñëw gis xar bi xam ne kii war na liggéey à la base mu récupéré xar bi tey liggéey ci moom liggéey ci moom tey ba champion bu tudd say biram ñoom sa maam la. ak garab ak suñu la da koo gis ñu ñu nar koo jaaxal mu jël ko liggéey ci. jël ko liggéey ci. liggéey ban la. ci ay 2005. ah bon 2005 waaw. ah kon grand bi yàgg na ni bergerie moo tudd. ah bergerie Petit Mbao. Petit Mbao Diop waaw. Euh, euh, bi. Euh, Birame Ndiémé boobu loolu yàgg na mais fan ngeen toll ci élevage yi yan saa ngeen lay yore bi. waaw Birame Ndiémé boobu yàgg na wax dëgg yàlla mais chaque jour rek bi ñu liggéey ci moom ay bas yu jigéen chaque jour dañuy tourné mal mais tew carrément tamit lu ñu tourné mal tamit tew carrément robu bëgg moom la koy jox mu ma gis euh, ñaari box box bi ay noir et laa fa gis si ay suro noir et blanc ñan ñoo fa nekk ak ban yan temps la waaw euh, euh, ñuy génn moo tax bi ñuy génn ñu ne fay am fay am nañu génnee ndaxte wax dëgg yàlla kenn gënuñu xar te kenn dàq wax dëgg yàlla da éleveur mag moom final rek lay fubal te gàncax final la ñuy moo tax mu demee nii waaw bëgg si bàyyi tamit soo gisee mu demee nii tamit sama mhm. waaw kër biram jéembi la ndax day jur noir mhm. euh, day jur noir mhm. day jur blanc day jur si rouge waaw waaw ma gis euh, ñetti femelle ak benn mâle moo fa nekk waaw benn mâle boobu la élément boobu mooy Dallinkoor waaw nekk sët Birame Ndiémé. ko jur euh, moom sët Birame Ndiémé. benn sëtu benn sëtu la Souga Bete la Souga Bete carrément sëtu Birame Ndiémé la. ok waaw ok si yéen a yéen a ko juddale. yéen a ko juddale waaw ñaar mois la am. moom ci neuf mois moom. neuf mois neuf mois waaw. ñaar euh, famille yi ma àndal. famille yëpp ah yëpp ah. yëpp yëpp yëpp seen biir yëpp yëpp waaw fii suñu produit lépp waaw lépp waaw. ñu ñëw fii gis fi benn maa curul mooy kan. maa bi tamit wax dëgg yàlla euh, sëñ Lamiñ moom ma xam kat yàgg nañ ay xarit lañ boo ah. dëgg yàlla ñaari bokk si ñaari ñaari bësër yi benn la mm-hmm. maa ngi doomu jógee la sa waaw kaka la juddoo mm-hmm. kaka la juddoo waaw ñaata la moom mën ci quatorze mois moom moom suñu saa saa waaw ok moom euh, instant bi mooy liggéey ci kër gi wala am na yeneen maal yu fa nekk non am na yeneen maal am na yeneen maal yu fa nekk am na yeneen maal yu fa nekk am na yeneen maal waaw famille mu àndal ak euh, mooy benn jeune maal ak ñe ak curóor yi waaw famille bi mu dem yëpp carrément si benn bi rek ci ci kër gi yéen ko juddule waaw ñoo ko juddule waaw waaw ah, kon yéen moom euh, day def production quoi waaw waaw ñoo ko digal foire moom suñ koy wax pour gars yi xam mm-hmm. foire producteur nga indi teg loolu liggéey nga indi teg boo yoree benn moom ñu xamee la ko dañ ciy travail xam ne carrément tey heure boo génnee da teg loo xam ne carrément dafa mooy liggéey mais nekkul lu gars yi jàpp may may compétir compétir non non te wax dëgg moo tax heure bu génnee rek day génn wax ne carrément day jeexal gars yi dëgg la wax dëgg yàlla moo tax moo tax muy bi euh, bergerie Mbao euh, mën nañ euh, foo leen nekk foo leen ci liggéey instant weer bii nii ah. ba muy dim si waat chaque weer bu nekkee foire ah. chaque weer dañuy sélectionné lu dul lii indiwaat foire indiwaat foire waaw lu dul lii dañ koy sélectionné indiwaat ko foire kon foofu jar naa ñëw ah. jar na ñëw naa fa ñëw wax dëgg yàlla billaay lu waaw lu wér lu wér lu wér naa fa ñëw seet leen ñëw fa soo ñëwee gis gis dëgg fan la nekk ak numéro bi moom mu ngi nekk euh, Petit Mbao gox ba soo jegee premier pont gox ba fa la nekk waaw numéro bi numéro bi 77 637 18 45 ok tey boo fa ñëwee ban maa laa fay fekkaat ba fa ñëwee dafa gis mal bu doy waar benn doomu gàttik ñaa sekk mbaaw bu doy waar laa lay wax ah. di gars yi di coow ah. su ma ñëwee gars yi naa dafa leen gaar rek naa dafa kenn xamul ara grand bi foog ma laaj ko ni mu récupéré bi leen génne wax ma ci tuuti quoi waaw waaw incha allah am xam sel la defal loolu grand dama ñëw waxtaan sa booy bi dara dama dégg mu ne Birame Ndiémé da nga ko gisoon ñun ñoo la ko jaay tabaski dëgg la nga récupéré ko liggéey ci. loolu lu mu demee parce loolu damaa loolu damaa <laughs> dëgg la en fait Birame Ndiémé. Uh-huh. dafa nekk xar boo xam ne. bi muy euh, bi muy siiw. Uh-huh. ba wax bi muy soog di feeñ foire. Uh-huh. deuxième participation foire dix huit mois la am. après nag nit ñi commencé di yàq deram. ok naan xar bi dafa rax ak métis laak nangam ak nangam di wax. Euh, mais xam nga euh, xar da ngay li mu li mu moom. li ne ci moom ak fa mu jëm man loolu moo ma inspiré ma ne xar bi mënuma rëcc maa ngi joxe benn anecdote fekkeewu ma ko dañ ma ko nettali mais ki ma ko nettali wóolu naa ko ci loolu docteur Alioune Sarr bi Birame Ndiémé am 18 mois ñëw obélisque premier première participation obélisque uh-huh. dafa ñëw docteur Alioune Sarr ne dégg ñuy wax naan métis mu ne ah bu fekkee ne métis nii lay mel de kon na yëpp na ñëpp dem uti métis pour wan la ne moom it am na lu mu gisoon ci moom léegi nag effectivement dama nekk ci benn jotaay ñuy waxtaan euh, borom biram Ndiémé di wax ne lendemain bi la naroon indi euh, biram njéemé pour jaay ko ma ne ko mais kon bu jaree tabaski nag mu ne kon affaire éleveurs yi la parce que ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo tax mu nar ko indi tabaski. parce que ñoo ko saboté ko. voilà ma ne ko xar bi bul ko jaay bu mu ñëw fii suba. waxtaan bi foofu laa ko bàyyi. ma bëccëg moo jotoon jolloor moo jotoon ma jóg dem uti xaalis lépp xaalis ñëw jënd biram jéeme jox ko xaalisam ne ko teel ma xar ba après fête mu toll ci ñaari at at jamono jooju jamono jooju mu ngi bëgg a am trois ans ba nga ko jëndee mu nga téye ko ñaata at téye naa ko téye naa ko deux ans ak lu teg su ma juumulee am na cinq ans am na cinq ans avant muy daal mu ngi bëgg a am six ans mu ngi bëgg a am six ans bi ma koy génnee ah kon anam moom anam moom instant moom moom dafa daanu dafa daanu léegi après nga génne ko jox ko keneen daanowul ci man daanowul ah, ci man liggéey nga ci li nga ko li nga ko daxoon nga jël ko regretté woo ko mukk mukk regretté ko ñaari fànn moo tax benn bi mooy man li ma gëm ci xar moom la ma indi euh, macha allah ñi nga xam ne yàgg nañ ñëw sama gét xam nañu ne sama gét ay femelle moo tax ñuy wax te femelle yooyu biram jéeme moo ma ko indil dama def sélection wutal ko ay soxna mu jur ku soxna yooyu corrigé li nga xam ne moom la ñu doon taar moom la ñu doon euh, euh, reproché Birame Ndiémé muy bopp bi ak béjjén yi yàlla defal ma ma am ci doom yoo xam ne ñoom ñëpp dañu am bopp yu rafet am béjjén yu rafet quelque rek ñoo ci amuloon béjjén mais ñu ngi njool rëy toll nu leen neex macha allah deuxième bi mooy euh, kii deuxième bi mooy Birame Ndiémé wax dëgg yàlla yóbbu na ma foo xam ne. man sax yaakaaruma koon ci élevage yóbbu na mu foo xam ne yaakaaruma koon ci élevage donc maa ngi sant yàlla bu baax bi ma defee choix boobu léegi nag euh, après jàll na ci yeneen loxo mais man li ma ci yàlla wërsëgal mooy fi mu jot a jaar am nañ fa ay doom mm. fi mu jaar après am nañ ci ay doom mais man maa ci guddalee man maa ci am yoo xam ne am nañu mucc parce que giir boobu dañoo bëgg a lekk euh, donc ñi ci amoon yëpp dañoo daanu ndax toxémie wala ñu daanu euh, parce que dañoo fër mais man yàlla dimbali na ma ba ma am ci yoo xam ne géré naa leen ba yàlla mi ma tim xam na ne bi ma leen di génnee daanaka dama leen maye ñu ngi am dix ans wala lu teg te yi ma ci génne dañoo ànd ak ëmb dem seede yaa ngi fi waaw seede yaa ngi fi bi ñu amee dix ans mbaa lu teg dañoo tëbu sama kër ba pare dem wasin fa ma leen joxe macha allah voilà. macha allah euh, yow il faut ma ñëw sa kër. ñëwal saa yu la neexee. naa fa ñëw parce que li li ma ma wax. il faut ma ñëw découvrir euh, euh, élevage bi nekk la neexee. tur bi naan la daanaka Petit Mbao ba ma fay daanaka éleveur amu fa maa fa ñëw en 2005. boobu ba léegi sama gerte. gannaaw dama fay ñëw ñu waxtaan. incha allah numéro bi encore. 77 637 18 45. dama ni. waaw Birame Diémé dégg gi liñ koy déggee gis ngeen fi mu jaar kon yàlla waxul kenn dara te te lii barkeel kenn xamu ko parce que gannaaw bi xar bu ñu demee ba borom découragé war ko joxe tabaski mu récupéré ko am lu mu ci ba liggéeyaat yi ba biram jéeme turam gën yéeg kon loolu mooy wane nit da ngay am ambition bu ragal il faut être audacieux gis nga nit booy def benn affaire da am audace am di jël ay risques donc gannaaw bi lii mu def risque la dafa am ak solo gannaaw naa fa ñëw waaw kay di ñëw fa boo ñëwee dinaa la woon ay jamono xar yoo xam ne yàgg nañ leen dégg ak xar yoo xam ne ba tey jii ñu ngi leen di dégg jackpot mi mhm. mën naa ne meññeefu biram jéemel boo laajee masayer si la dina la ko wax ak yeneen yoo xam dinaa la wax ne liggéeyu biram jéemel la liggéeyu gétt bi la grâce waaw incha allah incha allah jaajëf waay